من قبلها تبت في ظلال وفي المستبدين حيث يفتح الورق ثم هبطت بلا دلال البشر أنت ولا مدقة ولا علق مطار تركب السفينة وقد ألجم نثرا وعلى الغرق وردت نار القليل مختتما تجول فيها ولست تطرق تنقل من سالب إلى رحم إذا ما علم بدا طبق تأتى بيتك المؤمن منه عندي فلا الياء وتعطى النسخ وأنت لما ولدت أسرغت الأرض وداد بنورك الأفق ونحن في ذاك ديائم في نور وسبل رساد نخضركم اللهم إنا نسألك بجاه ممدوح عندك المهدي أن تعزم زنا من ذلك نور والدياء أن تهدينا إلى سبيل رساد أمين يا رب العالمين يا مصطفى من قبل نستطيع آدم فالكون لم تفتح له الاعلاق أي الروم مخلوق أثنى على أخلاق خلق وما صلي على سيدنا محمد الفاتي لما ولقاء القاتم لما سبقنا سراق بالأقوال ديلا صراطك المستقيم على آل قدر مقدار العظيم السلام عليكم ورحمة الله وسبابة أنصار الدين ñu ngi نيو di nuyu ñu ngi leen di ndokkeel di leen ziyaara fas yéene del siyaat ak yéen ci seen di seyru qalbi seyru qalbi nak ñu baaxo ko and ak yéen aljuma ñu jot ci waxtu wi lolu dañ ko doon hubbe di leen xamal ne weer ak weer yi ki nga xamne mom mo ba waral lepp mom la weeram bi taxaw moy ki kat ba daan ndokel nan ko hat hilalun li rabbi malikin naasi ki nga xamantene mom moy rabbu malikun naasi weeram ba teruna moy wax benen هنيئا لإبراهيم لا هلاله هلال بدا للناظرين جماله weer ak kooku moo teru moo tax ñu tàmbalee foofu darsu tey bi ñu ngi taxawoon rek ci baay di wax ne wata yamani hubi ka sirtu mu jam ji man alal barri wal ajwa arumu wisaala tey ñu war a tàmbalee ci baay di wax ne fa qadartu awtaani wa ali wa usrati ajubul fala lam asqu qattu qalaala kooku mooy baay radiallahu anhu leegi mu ngi noonu baay waxoon na ne yow yonant bi sala alayi wasalama ci seyru xalbi ci xarfu jim bi mu ne yow yonant bi samba gel gi wéetal na ma ba dama mujju di baagante ci jawu jeeg ci jéeri ji loolu yépp bi ma koy def nag sakkoo jokkoog yow rek moo moo doon itte bi ñu ne léegi baay mu ne fa qaadartu bàyyeekoo naa fa qaadartu gàddaay naa fa qaadartu départ naa awtaani ma bàyyi samay dëkkuwaay wa ahli ma bàyyi samay famille wa usrati ma bayijo boɗ sama ñune ko binga defeelolu bayino def mune a juubol falamange qotti allah yu sori limuy metti yépp nag lam asku qattu qalala dow mosa déggñu jambat coono kon xana bay bii tegil na mboolem ñi nga xam ne dañoo bugga liggéey ci pey bi te buggu noflaay de duhul wergu yaram duhul leneen nit ki demal liggéey rek ba bes bu dee ñowee nga dee dem noppalu bokk na ci ustaas yi nga xam ne daan nañ ma jàngal ustaas maxtar si lañ ko daan wax ca rajo dunia mu naan nelaw bu bëri képp ko ko bugg bayil ba dee waaye góor daal mission xam ci dund bii di wut nelaw mu ne boo dee di nga nelaw ba sonn ndax suñ maam ya dee woon ca si yékkal yu njëkk ya ba léegi ñu ngi tëdd nelaw te xeewooguñ kon fii du palaasu noflaay kaay moo tax Baay wax ne ajuubul fala lam asqu qattu kalaala maa ngay xotti àll yu mu ne waaye kenn mosul dégg ma jàmbat benn coono mukk mukk lam asku duma jàmbat xatun benn yoon kala lan ab coono de kooku mooy Baay radiyallahu anhu moo tax mu ne bi kawlaka tawran aw bi yoofin wa marratan bi baarisa daaril fasiqina kusaala mu ne tawran yenn saay bi kawlaka ma dépare kawlak wa marratan wala yeneen saay bi yoofin ma dépare ci aéroport bu yoof ñu ne mu ne yenn wa maratan yenn saay nag bi baari ma dépare pari fan mooy pari mu ne daaril faasiqiina xusaala foofu nga xam ne mooy këru kàccoor yi nga xam ne ñu tayal lañ ci wàllu jaamu yàlla kooku mooy Baye radiallahu anhu moo tax Baye mu ne léegi mu yenn saay ma dépare Kaolack yenn saay ma dépare aéroport bu Yoff am yenn saa yoo xam ne voyage bi mu may fekk Paris ma dépare foofa Paris ba nga xam ne mooy këru kàccoor ya ñu ne ko ak fan baay mu ne bi Belgique Yomun summa yawman tajawulan bi qahiratin abqi hunaka jamala ta baay mu ne bi belgique ca belgique yawmun bés summa yawman gannaaw bes boobu tajawulan ma ngay windeelu bi qahiratin ca qahira abqi maa ngi fay seet abqi hunaka kama doon xool foofu jamala mooy jamal abdu nasir mu ne malik ñaal na abdul malik alqarmi ka nga kamne ne sang kangamla xat jiitu moom laa dikkoon mom hinan di ko ndokkeel mu di dokkel, ki nga xamne moy Abdul Malik wama londonan am koy fa ba qayala nee dafa dem London ñi wax ne serigne bi tuké mi dafa bari lu muy ut London mune len le li Abdul Malik al Qarmi xat jiitu mawhinan wama london an aqifa ba qayala man kay sama dik ci London fi Abdul Malik mi nga xamne kangam la ci jaamu yàlla moom laa dikkoon pour ndokel ci ko rek waye bu len man London mo ma taxoon وكما إبراهيم رضي الله عنه مريفا هبها قيالا بيل سنجرتمي بيل سنجرتمي لغي باي من بي بيروتا أن حسين بثاق قادما رسول الإله الأرس وهو تعالى من بي بيروتا ماغي دباري تا بيروت بما نكي تا بيروت أن هو جبلنا سينا تا سين بسرق سين بسوري بفيتي تا سرق ريومي قادما ماغي سكو لغيال rasulal ilahi larti yonanta bi yàlla ak xaras gi mu ne waxuwa yonanti boobu taala ku kowe la mu ne wala waxuwa nga ne yàlla moomu taala ku kowe la ne ak fan mu ne karaafi bi ha qalaftu ahla mawaddati hum nasaru dina nabi fiala mu ne karaafi dem naa ca karaasi bi ha ca dëkk booba qalaftu bàyyi naa fa ahla mawaddati ñu am sama cofeel ndeysaan mu ne bi demee karaafi bàyyi na fa ñoo xam ne ñu ko bëgg lañ ñu am cofeelam lañ wala ñoo xam ne sopp na leen ñu ne lu tax bàyyi nga soppale mu ne hum ñoom de nazaru dañuy dimbale dina nabi dina yonant bi fi ala ci seen jëf sa mu ne qadi tasamu ñoom ñep jappandu nañ bi habli ci benn buum habli muhammadin muy buum ak bi sallallahu alayhi wasallam sallam xam nga yalla bu waxee ne watasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu legi nak lahu hablom bobu sayru la lu taalibe yi war a dem xooli boo xam lan mooy xabloog laahu boobu mu doon wax ne na ci ñëpp jàpp xablu boobu nag la bàyyi wax ni bam demee karaas yi ci la fekk ñoom ñëpp ñu jàpp mu ne xadi te samoo jafandu nañ bi xabli ci benn buum xabli muhammadin muy bu ak yonant bi lan mooy buum ak yonant bi kooku moom duhul maa koy wax mu ne kibaaran mag ña wa at falan ak ndaw ña ni san jigéen ña wari jaala ak góor ña cay kooku mooy bàyyi mu ne karaas yii gi dem bàyyi naa fa ñoo xam ne ñu am seen cofeel la lu tax nga am seen cofeel mu ne ndax dañuy dimbale diine ak yonant bi ci seen jëf ñoom ñëpp dañoo jafandu ci benn buum muy buum ak yonant bi mag ñaag ndaw ña góor ñaag jigéen ña ñëpp ñooy def loola kooku mooy Baay radiallahu anhu moo tax Baay a ngi noonu rek ba léegi ci li nga xam ne daan na ko def ci ay tukki ngir lawal diine yonant bi sallallahu alayhi wa sallama moo tax mu ne bi daari ulumi diini adraktu nuzahati faqad sayyada majjan yafuqu maxaala bi daari ulumi diini mu ne ca daaru ulumi diin adraktu foofa laa amee adraktu fa laa jotee nu zaati sama noflaay ba ma demee ca daaru ulumi diin mu ne sama noflaay fa la matee daaru ulumi diin fa nga xam ne fa lañ daje borom xam-xam ya ñooy laajte ci xam-xam Cheikh Ibrahim di tontu laaj buñ ko laaj mu tontu leen bu wax leen ca laaj ba loo xam ne xamuñ ko woon mu ne foofa fa laa jotee sama noflaay. faqat sayyadat déggeral nañ majjan ay yëf yafuuqu yoo xam ne ñoo gën a kowe maqaalan ay wax de te lañ fa déggeral moo gën a kowe ay wax mu ne li markazi inaamil ilaahi tasawuqi ca santaraala ki aji xéewal ga mu ne tasawuqi mooy sama cofeel faqat saada taxawal nañ majjan ay tëdd nga is ba nga xamee ne ataaxa ubbi nañ majaala ay yëf mu ne foofa nga xam ne de taxawal nañ fa ay tedd nga te foofa it nga xam ne fa lañ dëgërale ay ay yëf de mu ne bi laahuura bil hindil qadimi imaratun masiri ilal mawla wa jalla jalala mu ne bi laahuura ca laahuur bil hindil yàgg ga imaratun am na fa ay tabax yu kawe masiri dox sama mu ne waaye man li ma doon dem yépp nag nit ñi yaakaar ne lu ne laay uuti ñu ne ko bàyyi sa dox gi ci lum jëmoon mu ne masiri ilal mawla wa jalla jalala sama dox rek mu ne ilal laa jëm ci borom bi masir yi sama dox de sama mboolem dox yi ci yàlla rek laa jëm mu ne yàlla man mu ne wa jàlla ma gën a jalaalaa ma gaayam gi léegi bàyyi mu ngi wax dëkk yim demoon ba léegi li xan kooka min ban kooka jaa qadimukum yuwaali lakal asfar wa huwa mu ne li xan kooka ca Hong Kong min banko ma baxee ko banko ba ma fa demee ma ne leen jaa dikk na qadimukum seen bëkk néeg bi jaa dikk na yi xadimukum seen liggéeykat bi yu waali mu ngay toftale laka ñaa las faara ay tukki wax wa ataala tukki yooyu yàgg na di san mu ne maa ngi toftale ay tukki tukki yoo xam ne yàgg na mu ne bi faariqi sabrin ci muñ gu dëgër nag xad ataala dikkee mu ta tafilan di xaaraan yonante bi sallallahu alayhi wa sallama bi mu ñëwee mu ne ci muñ gu dëgër la dikkee di xaaraan yonante bi sallallahu alayhi wa sallam léegi bàyyi mu ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallama fa xaqiq yàlla na nga wiral rajaa abdin yaakaaru jaam bi jaam bi nga xam ne raa ka gis na la mën naa la ngay aji maye léegi mu ngi noonu kon lii mooy tukki yi nga xam ne bàyyi tukki xon na ko dëkk yi mooy dëkk yi nga xam ne lim na ko ci tukkeem bi dañuy taxaw foofu incha allah bu ñëwaatee ñu jàll ci bàyyi di wax naan wa fi kulli hayin qad qabatta bi nimatin ila kulli hayin qad badaltal manala mu ngi noonu léegi nag lii mooy dëkk yi nga xam ne bàyyi lim na ne dem na fa yëpp ci tukkeem boobu nee na fa qadartu awtaani وأهلي وأسرتي أجوب الفلا لم أسك قط قلالا بكولك دورا أو بيوف ومرة بباريس بباري صدار قسالا باريس بوب موي واخ موي باري منه ببلجيكا يوما ثم يوم تجولا بقاهرة أبقي هناك جمالا دكي لا وحل وهل لعبد المليق القرمي قد جئت موهنا وما لندن أبقي فهبها قيالا ببيروت أنهو سينا بسرق قادما رسول الإله العرش وهو تعالى كرافي بها قلفت أهل مودتي هم نصروا دين النبي فعلا قد اعتصموا بحبل حبل محمد كبارا وأطفالا نسا ورجالا بدار علوم الدين أدركت نصحتي فقد سيدت مجدا يفوق مقالا بمركز إنعام الإله تسوقي فقد ساد مجدا إذ أتاها مجالا بلا هورة بالهند القديم عمارة مسيري إلا المولى والجل جلالا لحن كونك من بان كونك جاء قديمكم يوالي لك الأسفار وهو أتالا بفارق طبل قد أتى متتفذا فحقق رجاء عبد رأى كمنا لا آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين